leen ak jàmm ci seen rajo bi jaferooy rajo Ratanga ñu ni am doom yu bari mooy am bunt yu bari sama gaañ dëgg la ak doom yu bari ci la jur yi di gën a yokk seeni mën-mën ak seeni am-am waaye ak ñu leen di taxaw tamit balaa loolu yépp faaw nga mën leen a yar def ci ñoom li nga xam ni moo war ngir ñu mën a jàng mën a tekki te it jëriñ leen ëllëg xarit di ratanga ak feneen kon boo ay ca leen ñu demati doom ju ma nàmpal naka laa mën a jure man doom ju ñàkkee nii xel góor ñi daal ñoom ñëpp a yem jigéen ju dof di yaakaar na ni mën naa nangu sama doom ci ci man xaaral rek ba tulli pare waxuma la benn waaye ñaari jabar laay uti ca village ba yow dag maa bëgg a rey yow walla taxawal seet salo taxi man bi di ma tiital dinaa ko wan di kenn du xoxatal jigéen ju jub ne man waaw waaw maa ngi dégg ba mu amati rek non non saaguma la de jox sira bi baron bi di téléphoné loolu moom àndul defar naa lépp ba pare ci waañ bi foog nga def nag attention ci Sira ku sopp la loolu moom xam naa ko bu baax kon dem naa dinaa dellu si ci boru ngoon soo ma soxlaa rekk sama numéro baa ngi ne ci taabal bi magar mii daal am na lu muy nëbb ni mu bége nii am na lu jaaduwul am kokule kana kana yëral ma kana kokule kana nga ay kayit yu lay garantil waaw dama mujjee demaat ba kër ga heureusement que yàgguma silan bi j'espère que kayit yi baax nañu rek ndax bëgguma administration sonal ma tey ci suba si mergar rezultat için biti. cee waa livre bi moom lu ci ne tulli daf maa dóorati mujj di jooy di ma jégglu waaye gëm naa ne dina ko defaat damaa xamul lan laa war a def maa ngi dunde ay mettit yu tar dóor saaga yi toroxal yi kii bés dina ma rey Surgital Glover, donc euh, 7 Elena Chatte. Salam alaikum, yaay. Assitan. <laughs> yow teel ngaa ñëw di sa heure liggéey jotagul sax. damay teel a jóg. Ah, waxuma la nga soppale ko jigéen ju kéemaane de <laughs> góorgóorlu rek. lépp dina baax. waaw yaay dama bëgg yokk sama njàng rek ngir ñu gën maa mën a yaatal fii. mais oui mais dem ci ndànk rek mais foog ngay dallu nag ngir ngay bañ a def erreur dooreel ci def mu baax loolu rek doy na sëkk fii kenn du la jox médaille de soo ëppalee. <laughs> wallaay du loolu nekk ci centre bi moo ma gën a amal njëriñ ko toog kër ga dina la. oh xale yi tey. waa gis nga di xale yi yaa ngi may fàttali sax sama malat bi mujj bi 15 ans la am. am doom teel na si xale bi dalal jàmm ci Ratanga fii nga xam ne lépp euh, mën na fi xew ba li nga foogul sax gox sax xam na li may wax du lépp a yomb fii ah <laughs> te sax su tanee nii jàpp na ci bu baax bi ma leen doon wax mbiru règle ak lu jëm ci contraception mu mel ni chinois ci ñoom <laughs> seen bopp bi mënoo ci dugal dara loo wax mu dugg fi génn fee <laughs> comme ay bébé. mais bu mu tax ñu bàyyi euh, dina mës a tane. Hmm. déggal ma li fii ci ratanga la bëgg a àddina fii kenn du fi soppi xel yi bandaas rekk la ñuy teg ci kaw góom yi. waa léegi nag ay ca dem leen ci liggéey ba seen malaat ñu leen di xaar foofu. di ñëw balaa waxtu liggéey di jot du tax nga nekk sage-femme bu gën ci ratanga teyal ndax nga am njëriñ. jigéen jële toog moom la ñuy wax ginaaru pond sàggan nag en plus xool ko ëmbati na demal yëgal ko xibaar bi mère Teresa na nga def de waaw am naa xibaar bu neex pour yow da nga mel ni xibaar bi neexu la de. si si mais il faut ma gis sama jëkkër. sa jëkkër nga àndal bàyyi ma jëlil la ko fu mu nekk. non fii lay liggéeyee bàyyi ma ma wax ko ko. d'accord soo bañee am ay jafe-jafe ci sa ëmb bi faa ngay noppaliku bu baax. vous avez combien d'enfants? Abou xale bu góor la ak doom bu jigéen bu huit mois. moo ngi nàmp ba tey. ah kon doo jël ay contraception. déglu ma li gën a am solo mooy nga tàmbali di toppatoo sa bopp d'accord. ki ko wax de moom day sàggane boppam fu mu toll. balaa nga naan da ngay jox nit ñi ay leçon dangay xool sa bopp ba pare noo mën na ñëwee liggéey si ak blouse bu am tache. Sira kaay añ te dafa lewet kaay ñu dem uti kaani laajte dëkkandoo bi ndax am na kaani soxna si soxna si amuloo foofu tuuti kaani téyel Sira yow lu tax ngay jooy sa ñoom yaay dañ doon xulooti lu si sa yoon xanaa yéen ay mboq ngeen déedéet dama sàcc si xale bi coow li bari na ànd ki dóor leer na ma ni si famille bi nga vraiment ma ngaa dalu si ciy xale bi su ko dóoree c'est parce que daf ko mérité est-ce que di nga mën a guddee wàcc tey yaa ngi may dégg magaax ma ne yaay tëj bul ma tànk yow waaw ordinateur 5 encore ordinateur 5 câble Ethernet bi la monsieur Doulani wax naa la nga changé ko ndax nga mën a économiser Magar fii benn baatu fi war a yuuxu ci kër gi mooy kiy fay te ba tey c'est Aïcha bindal ma listu ñëpp ñu ñu convoqué pour ñu war a ñu wuyu ci réunion bi jeudi ok waaw d'accord yaakaar naa ni docteur Moulay tamit dañ ko convoqué non docteur Moulay waaw foo nekk sama taala est-ce que c'est pour beneen enfant kañ nga ñuy bàyyi nga baal ma est-ce xam nga taala li ma di mbaa jàmm la mu nekk nii dama jàpp de mais daam loo bëggoon mais sa naataango bi moo ne taala mu ngi fii waaw c'est mon mari ah man xaw ma taala ku bees laa fii waaye yow mbaa ça va. man de gis naa sa naataangoo bi muy def ci sa blouse bi encre sama goro itam dafa soxor ak man. korsa dinga ko digaale ak man. ah gone gii soo lekkulee dina metti ci yow de xam nga. boo lekkee da nga màgg soo màggee nag da ngay rafet bu ko defee góor ñépp bëgg la su nga dem sàcc jëkkëru ñeneen ñi bu lekk dégg nga moo gën sax hmm. ah sax damaa gisagul tulli ba jàpp sama bésu voyage bi man gént gaawal tuuti yow li ngay tayal xaw ma ban genre yaay yaay dinaa la takkal wujj bu may toppatoo bu baax man anam bi neexul te tey suma doom dama fatigué sama bopp bi dina explosé xanaa sa goro bi moo la su fekkoon ni loolu rek la mu tane qu'est-ce qui ne va pas enceinte <gasps> te xaw ma ndax loolu bon idée la xaa yow tamit nag yenn yi nag saggan la luy doon xalaatu taala ak itam meer bi bàyyil ma roko ba taala lay jàppale looloo gën a am solo gis naa ni taala di sonnee ngir ñu mën a lekk mm-hmm. xam nga dama doon caat ci juróom ñetteel si ñun moo ma jox juróom ñetti raison wu ragalaat am beneen bant mag yi nee nañu de xale moom alalu yàlla la dama yàgg di sacrifié ngir nit ñi di sonn rekk ci liggéey bi te ba ma demee ba génn kër ga ngir marié ak taala la allez suma chérie yow am na chance ak celui tu aimes waaw je waaye mënoon naa am lu ëpp fayam su ma yëgle woon samay étude hmm. kon ñi nga gañe xaalis bu bëri wante lépp ngay dépense ci ay couche <laughs> bàjjen nu ma doon def sans toi merci muñal ma bul xaddi bul xaddi waaye yow loo bëgg yow mi yaa taqal sama blouse xaw li ngay wax de man kii gis sama ko wax sa yëfu xale yii. sa kooku xamul li muy wax kon. ah oui du moom rek a ko gis te beneen yoon bul takkal sa bopp yow tamit. kon dafa mel ni man ak yow ñoo bokk saboteur. perdre sa temps si liggéey bi da lay sonal rek ba suba. ñibi jot na Aïcha na ñëpp déconnecté ñibi jot na dañuy tëj. merci au revoir. jërëjëf. au revoir beneen yoon. kokule kana kokule kana. yéeral ma xool gan kokule kana. kokule kana. jéggalu de ma sœur benn kilo tomate rek laa soxla sama doom laa bàyyi. ma sœur. ñun ñëpp am nañ ay doom yu ñuy xaar de sama goro moo ma koy gàddal ah sa goro moo leen téye kon paas merci. jërëjëf. jërëjëf. nii moom Rokoba du am dara lu may wax. waaw yu jit bi nag. allo. waaw. yow maa ko. mais tey yaa ma ni woon da naroon guddee wàcc. mais mosuma la ko wax. maa ngi sama kër. waaw sama kër. mënuma wax de. su fekkente ne mënatuma compter si yow nga jégal ma de. mais amalatoo ma benn njëriñ. waa baax na suba moom maa la ko wax dinaa fa yàgg. mbaa sonalu duma laaj sax lu tax nga tardé jàppal ni heure bu ci tegu danga ko war a fay. fay mais Tulli na ma doo si fayee ko. kon de moom lu ko neex la la wax moo. dama jaar marché ngir jënd tomate dong. man la. waa tante looy def fii ba léegi. yow laa doon xaar. il faut ñu waxtaan foog ñu ànd village ci weekend bii dem naa man waa baax na Bonjour. bonjour le grand Diop dellu si na seet si ñu. waaw gis nga mais euh, dama doon seet si benn xale bu jigéen euh, mooy ki ma doon faj démb. ah loolu bu mu la def kaa ñun ñëpp euh, ñuy liggéey ci kër gi xam nañu liggéey bi fii. bah je m'inquiète pas ah c'est que dama ñëw seet si xale bu jigéen bi pour ay soins personnels. ah oui. xool ko ni mu ah encore yow. oh gis naa ne yaa ngi gën a bëri salañ salañ ak say <laughs> waaw wuy ma mën naa la invité dîner pour gërëm la ci niñ ma toppatoowee. waaw avec plaisir lu koy tere dina ma neex. merci. ñu dem ma gunge la mais loolu jaru ko woon dama ko def rek ak mbégte ndax sama liggéey la. bonjour docteur ñu ci suba ba léegi. Euh, baax na baax na merci Corsa euh, woo leen ma sage bu bees bi boo leen ko gisee. ah Corsa waaw kañ dama soxloon sa xalaat sax. waaw pour lan. est-ce que xalaatoon dama nar a invité assistant pour gërëm ko si lu muy hôtel appartement yi. Eh, eh. fii centre de santé la du joxukaay rendez-vous. Mhm. Hmm. taale ba tey fii dara sotteegul balaa taale di gis nga au centre examen yi dafa jël plus de temps que prévu mais togg naa ba pare kéjenu de poulet sa plat préféré ah ba xam centre ba ñoom dañu gis ne dañu damay amaat bébé mën a fen léegi kuy bàyyam nag non nga juum ci numéro bi. na nga seet bu baax Sira moom kenn mi ngay bàyyi ko taabal bi. wax nga dëggatul yi